ngir jàmm ji sax durable ak une élection yu présidentielle apaisée le bi composé nga xam ne de maître coranique à formuler des prières ñoo ko ŋànk ay ñaan ci mim réew eh, ñun ñoo daje woon fii ndax dañu defoon eh, ay kaamil alquraan ci département yi ñu mottali ko fii mooy téeméeri ak fukk ak benn kaamil alquraan ngir euh, defal hommage à son excellence le président de la république monsieur Macky Sall ndax teraanga ak xéewal bi nga xam ne defal na ko daara alquran fii ci biir senegal mouvement boobu sax daal dina profité wu ci bis bi ngir mu exprimer li nga xamante ne moo di seen i mbëbët. Euh, avant Macky di ñëw dañu daan wax ne ñun de bokkuñu ci ñun de gisuñu dara ñun de dañu beddi dañu bàyyi ginnaaw loolu lañu daan wax. waaye Macky Sall liggéey na ci biir daara la ba nga xam ne tey jii sëriñ daara boo gis day way xëy na kay dafay wax ne yéex na lii yéex na ñëw wala lii tuuti na waaye tey jii bokk nañ ci programme bi bokk nañ ci système bi. Mouvement pour la réforme et le progrès daal dina apporter son soutien maanaam bëgg a jàppale Amadou Ba ngir continuité.